mbokki Bantamba ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte ñu ngi dellu siwaat ci wàllu làmb ci seen émission nenu koy def rek ci fan yi mu di ay portrait di leen gën a xam leeg mbër yi ñuy gën a xam ñooy ñan di gën a xam fu nu dëkk lu nuy dunde ak ñan la ñuy dundal moo waral tey jii mbokk yi fan yëpp yéen a ngi champion yéen dalal waaye xam ngeen ni làmb ju mag dafa am buñ dee xool bokk na ci combat bi gën a mag ci yinu jot gum taxawal mu di Papa Sow ak bayma ñoon xam ngeen ni bayma ñoon dugg na fas Baye Mandione dugg na fas daje na Fass Djily dugg na Fass ba mbay juuf di bëreeg moom dugg na Fass ak digganteem ak gri Bordeaux waaye yaakaar naa ni bayma ñoon am Fass ndam bariwut wala yombut ba tax na daal beneen a ngi boo amateur yi na ni combat bu deex lay doon muy digganteem ak Papa Sow Papa Sow ak bayma ñoon nag yaakaar naa ne taay bi dee xool Baye Mandione gën koo siggi waaye buñ dee xoolit ci déplacement dafa am solo ci mbër waaye daal papa yaa ngi am combat boo xamante ni ni xamuma combat boobu fan nga ko teg waaye na nga xam ne yaa ngi bëri koo xamante ni ku mën a bëri la ku am fit ku am jom la daan ko du dangaa daan cuune daan ko du dangaa daan ku mënta bëre ku ko daan xamal ni champion nga daan te képp koo xam ne Baye Mandione daan la na nga xam ni ndaanaana la daan ku mën a bëree la daan ku bëgg bëree la daan ku bëgg am ndam am jom moo la daan kon combat ngi noonu boo xamante ne nii combat bu am solo la Aziz Ndiaye taxawal ko bari na ci combat yu jot a taxaw Aziz Ndiaye mooy ki nga xam ne moo ko taxawal ndaxte bari na fi ay combat yoo xamante ni ca dëgg-dëgg nit ñi bëggoon nañ ko yaakaar nañ ko te Aziz Ndiaye taxaw na ci lépp loo xamante ni ngir mën koo amal rawatina rek combat bi nga xamante ni moo di Tyson 2 bu Tay Shinga ak Neko Rell combat boobu eh, nan ci bàyyi xel Tyson 2 champion nga ndaanaan nga parce que xool nan la jël nga fii tournoi te it bu nu xoolee sa làmbi daaw làmb la joo xamante ni dëgg-dëgg def nga ci jom def nga ci fulla waaye yaa ngi bëri ku naqare bëril muy Néckorel Néckorel ñi xam làmb ñëpp xam na nañu nan la mel ñi xam làmb xam na ni champion la ci wàllu bëri moo tax combat la lagros Rose ak Modou Anta combat ngi noonu boo xamante ni Aziz Ndiaye moo ko taxawal combat yi mu taxawal bari na waaye ñu wax leen rek combat yi nga xam ne ñoo jot a taxaw agum ci saison bi yaroo baax nekk tigre bu soomoon nekk ci écoute di tigre dem bay géey king kong bu faas ak so sokosin bu Balla Gaye kooku it combat la combat la king kong am nga combat waaye sokosin yow tamit yaa ngi bëree koo xamante nii daan ko mën na laa indil dara waaye moom it bu la daanee yaakaar na dina am beneen jéego boo xamante ne dina ko def Malick Niang Malick Niang Malick Niang parce que ñëpp dañ woon kan moo war a mën a wuutu Yékini ci biir Ndakaaru ñu ne Malick Niang Malick Niang dëgg la nekkatul écurie Ndakaaru Tine moom ak Sa Thiès yaa ngi bëreeg doomi mbër te doomi mbër jàngil bëre la te am na moral léegi mu di Sa am na moral am na yaakaar mooy loolu te it gëm na ni war naa mën a doon champion. Fifty Cent bu Mor Fadam dina bëri ak Yanda bu Parcelles Mbooloo waaw Yanda dinaa la wax la la waxoon ba ngay bëri ak Pape seen kooku ngay bëreel bul gis ni bàyyi pël da koo daan ba tax nga yaakaar day yomb ci yow déedéet examen bu mag ci nga nekk ndax di nga demam déet loola ci kanam lay leer e wax naa leen Baye Mandione ak Papa ak Garga Mbossé kooku combat la boo xamante ni combat bu am solo la l'an 2000 wala en 2000 bu zap moom it mook bébé Saloum ah bu njomboor yi waaw kooku tamit lamb la bébé saalum tegale woon na fi ay defet waaye làmb moo mel noonu boo xoolee ci ñi ne ci kaw tey jii am na ci ñoo xam ne tegale woon nañu ay defet waaye nag danoo am seenug jom am seenug fulla ba tax ñu yegg si fi ñu yegg si tey jii l'an 2000 nag bébé Saloum li ma lay wax mooy bu dee ni bëri la rek l'an 2000 mën naa bëri ndaxte yàgg na gàddu ay drapeau fii ci terrain gaal gi yàgg na ko gàddu adressé Senghor te it fépp foo xam ni traditionnel am na fa ma nga fa Pikine Fallay Balde ak ama neex lébu bi amaa xam nga lu ma lay wax boo laa nga bëri demal ci booy ñaa ak lagros nga laaj leen kan mooy ama neex lan la ama neex di bëri kenn xamu ko waaw day mel ni ku la ragal nga yaakaar ne da laa ragal jegewul fu nuy ragal fekkiwu ko te it bu dee nit na nga naraan di bëre ngay bëre ñëw jël combat yaakaar ne yow rek yaay bëre yow ak lag Rose lolou moy seen défaut da ngeen di cërele ñi ngeen di bëril deug la nak attaquer ko gañe bax waye lolou de leen ci bayyi xel ama bu la gaay wax ni ya ko mëna ku la ko wax bu ko déglu mëno ama neex bëre nak mën nga bëre nit daan ko wa lolou war na mëna bu boba la ne xam ki man ki man daan tank bëre gok mom ba daan ko mëno ko pap Morlo bu sàkku xam-xam ak amet Dem même chose limay wax amet Dem moy lamay wax ama neex yow pap Morlo mën nga bëre torop mën nga bëri am nga technique am ngay feem waaye nag yaa ngi bëri ku naqari bëri mu di Ahmed Deme combat la bu garaaw boo xamante ni na ko seetaat bu baax balaa nga ko bëri Siteu bu Lamsaar ak Malaw Sera Siteu yaa gën a nekk xale yow la nu gën a yaakaar waaye expérience bi fële la te maalaw day sàcc foofu laa yem ak yow ci maalo maalaw day sàcc sàcc na ko dul yow combat bi nga xam ne bokk na ci combat yi gën a neex nag mooy Moussa Ndoye Alioune Seye numéro 2 waaw Moussa Ndoye Alioune Seye numéro 2 combat combat la boo xamante ne nii ah boobu moom ku mën sa morom duma ndaxte yéen ñaan ñëpp am technique boobu yéen ñaan ñëpp laay bàyyi ngeen waajal seen bopp santan ñi ngi Matar Gueye yéen ñaar ngeen ñoo xamante ni ci champion yi boo dox Matar Thiès laa yaakaar te yaay magi waa Thiès santan ñi ngi bu nee ci yoof xel yëpp dem ci santan mu mag maak mu ndaw ma kon combat nga dolf ah dolf nga ak trompeur trompeur moytul dolf boo moytuwul dolf dolf dina la trompe lu leer laa la yëgal na la Pape Sène trompé woon Pape Sène day trompé xale yi moo tax dolf trompeur na ko moytu super étoile bu Lamsaar ak assurance bu Mbour waaw combat gi noonu combat gi noonu super étoile waaw super étoile ndaanaan la mook assurance bu Mbour waaw tolloo noonu tolloo noonu te ñoom ñaar ñëpp def na nañu lutte sànq. Jordan Tyson ak Forza waaw benen ak ñoom bobu it combat Jordan wow na yaangi ngi bëri ku mën a bëri te ko xamanteni ni fa mu ne dañ ko yaakar trop trop trop na nga ngembo lolu boy ñew ci biir lamb ta xamni war nga bëna dem ginnaaw umma seen yow la saa 2 bu Mor Fadam mom ak papier général waaw saa kajoor yow it la wax na nga moytu la la dalon ca Boy Niang bo sétané rek sagané mo lay dal ci papier général lèr la lèr papier général day bété te mëna mën na bëri waaye nag Papis général yow it yaa ngi bëri champion koo xamante ne nii gis na xale yi topp ci ginnaawam jéego yi nii def kon yow mi ne ci kanam xoolal ci yooyu jéego caat bu booy bambal caat bu booy bambal ak laay bay caat day bëri bëri bépp daanu loolu moo ko dal ci kombaa yu bari tawarul daanu war naa daanu mbër la waaye war warta daanu ci yenn combat yi nga xamante ni nii daf ciy daanu daf nuy jaaxal yàgg laay béy bu bës ko sow laay béy champion la teyit yàgg na ci làmb ji loolu tam mu leen ko fàtte marle bu Pape Kane ak doomu jalaaw combat baa ngi noonu waaw kay combat baa ngi muy doomu jalaaw ak marle doomu jalaaw ndaanaan mën ngaa bëri xam nga fi nga jëm waaye nag am nga ku taxaw ci sa kanam di xale te xel mi boo ko toppee di nga mel ni kuy loolu na ko bàyyi parce que xam na ni war naa mën a bokk ci làmb ji wax na cee mën a def dara na nga ko bàyyi xel bu baax muy maar tonnerre ak Garga Mbossé yéen ñaar même catégorie même chose Tonnerre benn défaite la am rek nekk ci saako loolu tamit jaaxaloon nañu après combat ak Papa rek Tonnerre dafa am problème non non warul am problème xaw ma ci encadrement am la xaw ma ci moom la xaw ma suspension bi la xaw ma lan la waaye Tonnerre na nga xam ne fii gars yi nekk tey jii foofu mooy sa place fa nga war a ne yaa ngi bëri koo xam ne nag Garga Mbossé yi dafa gis yoon te xool na mag ji fi ñu toll teg na bët mag ji kon maanaam bëgg na jaar fi mag ji jaar ba mag ji xam mag ji dafa nekkoon ci tolof tolof waaye ñafe na ba yegg si gone yi gone du ko kon loolu it ci bàyyi xel kon combat baa ngi noonu combat yooyu moo fi jot taxaw ni ñu leen koy waxee rek kon combat yi promoteur yi nga xam ñoo ko taxawal ñoom ñëpp ñu leen di encouragé te it ñu jàpp ci làmb ndaxte làmb lu am solo ñuy fàttali rek ca Kanel le 20 octobre am na fa week-end culturel week-end culturel et sportif moo am ca Kanel meeru Kanel moo ko taxawal monsieur Daaf li mu bëgg mooy Kanel génn ci enclavement bi nga xamante ci moom la nekk ndaxte mbër yëpp war nañ faa dem te bu boobaa ñi ngi séentu mu war Thiès ak xale yi nga xam ñoom booy naa rek ñoom ñëpp ñu war a dem fa nga xam ne moo di ndax te kaneel ay kaneel nag suñuy mbokk fa nekk a jaaraam bandiraaɓe mbokk yi kon dañ leen di bàyyeeg beneen bandiraaɓe mu di Papa Sow ñu xool ko portrait ñu xool làmb fi mu toll ci moom ak it combat bi muy waajal digganteem ak Baye Mandione papa nuyu nañ la bu baax Assalamualaikum mbokk Sénégal ñu ngi nuyu ku nekk sa tur sant di kontaan lool émission bi di portrait pour ñëw di ànd ak Bécaye Mbaye waaw ren am 32 ans ren waaw ay 105 kilos 103 kilos yooyu rek laay pesé 1 75 man maa ngi juddoo Fass màggee parcelle xam ñu dinoo juddu fekk ñoom béygee suñu kër di fréquenté suñu kër ñu màgg ci loolu ñëw xamuñu kër footballeur di amee kër am lay boo juddoo nekk ci leneen sax da koy mën da mën soit doo ko pratiquer wala nga pratiquer ko ndax ñun moom la ñu xam bëri la xam. parce da nga koy bëgg rek xam nga loo judd fekk sa wàkkat di ko def loo cuuna cuun di ci am dara après nag yaay xool bu la neexee nga continuer bu neexee nga xool leen loo def. ndax amoon naa qualité am naa technique bi amoon naa pas-pas bi aussi. looloo jaaxal ñëpp nag mais loolu fu ma si am nag mbër bu njool mbër bu gàtt mbër bu rëy mbër bu ndaw loolu fi ma sa am te moo fi ma sa moo fi des aussi waa li xam nga leneen gis mbër bu def deux kilo deux deux mètres def cent cinquante kilos mësta am mësta am cachet bu romb cinq millions essentiel mooy métier bi nga mën ko mecc bi ngay def tey jii boo investiroon say millions ci beneen affaire boo xamul lu bokk ak lii ci perte ngay dem loolu la mel rek boo guddeeroo te xamoo dara aussi doo sore yàlla na ko yàlla may waaw Moussa ñu ngi nag moom si njëkk encouragé moom si gën a encouragé ndax bon dama daan def sax am combat da ngay liggéey liggéey ba jour combat bi nga xëy liggéey sa menuiserie boo amee jot nga takk sa ngeem bu añ ba pare ngeen dem stade bëre def moom dama ko defoon rek pour fo mais moom en ah, personne moo ne ma bàyyi lépp nga ñëw ci affaire yi ndax da nga ciy génn Moussa Gningue moo tax moom maa ngi koy profité di ko remercier di ko nuyu di ko yëgalaale aussi tamit suma combat bi taxaw maa bàyyi ma jën aussi waaw man jàng naa ba CM2 rek ah faraayam examen ma bon xam nga boo nekkee am âge yooyu âge CM2 boo tollee ay 14 ans yooyu âge bet âge bet bi nga toll noonu pour yow loo def sax sa papa nga koy defal wala sa waa famille nga koy defal mais su ma wala damay jàng sinon dinaa jàng ba sori quoi mais teel a am tuuti liberté moo tax ma jàngum aussi yéen. man mu am régime man moom lu kër gi lekk rek laay lekk man man am régime quoi ah am régime man loolu laa taam ma man loolu laa taam man boo amee combat. waaw man boo amee combat loolu laa xam quoi. sa moom suma mag na wax dëgg yàlla mais tamit làmb wërsëg am na ci quoi moom moom man moom ma dàq bëre fuuf mais nag yàlla aussi tamit moom it. moroom ñoom ëmm seen yoon ñoom ëmm seen demee nekkoon ci suuf dem dem na fa foofu am foo xam ne nag du kenn ku la mën jàppale ci àdduna yaay jàppale sa bopp sportif bi eggee foofu. fu mu nekk nii moom rek moo mën dimbali boppam moo gën a jafe nag fii moo gën a jafe pour génnaat mais yow yaa mën dimbali si bopp pour bokkaat ci raam. waaw il faut nga am mental bu baax ba pare am volonté. waaw xam nga góor tamit góor bu nekk chaque jour nga ñeme ci àdduna loolu amul ku ne ci àdduna rek day lu ko neex. bés dina ñëw nga tiit mais na góor warul tiit lu bari mais góor bés dina ñëw mu tiit mais warul tiit lu bari li ñu ay tiitam war ta man sama philosophie xam mooy lan ñun ñëpp nekk ay tigre de Fass ñëpp ay tigre de Fass sax ñëpp di bëre ñëpp di daan équipe bu nekkaat équipe boo xamante ne équipe mag lay nekk mais benn buy daan ñaar di daan wala ñetti daan ñeen di daanu du avancement bi quoi li am avancement bi mooy ñëpp di am ndam yombul nag mais majorité bi sax ñuy am ñuy victoire quoi. waaw man non kontaanu ma ci moom ma kontaan ndax bu nekkee group ñi ànd ñi ànd ñu day nekk loo xamante ni aussi bon dañuy yomb dañuy yomb dañuy yomb dugg quoi nit day ñëw dugg si suñu prêtre ñu day yomb. jàmm rek jàmm rek ñu waxtaan booloo ñu mën a juboo juboo ñu mën juboo ñoo xam ne mën ñoo juboo nag ñu xam ñoom ñu leen def. Gris Bordeaux Balla Diouf Ouza Djily Mbaye ay Babacar Diallo. ñu ñu nekkoon Fass nekkoon seen ànd bu rafet buñ soñu daal ñu waat àndaat man philosophie bu la am nan defaraat rek àndaat ndax kenn mënul def kenn mbër kenn mënul yàqal kenn si ñoom seen biir ñu nekk seen ginnaaw di mbel mbel mbel mbel moytul diw jàppal diw ñooñu nan xool nañu déglu ñu leen di wax ndax làmb bu la si kenn ndax élément boo wàññi rek da lay yàqal ëllëg fexeel dajale ñëpp rek ñeneen ñi ñëw di la wax eh, moytul bàlla moytul giri giri moytul bàlla kii sàngam kii sàngam ni ñu bañ ñu may fas kanam ñooñu ba ñooñu bañ a ñëw si ñoom loolu am solo amuma position dirigeant sangam sangam sangam man Fass ma ñor écurie Fass moom ma intéressé leen intéressé wu ma si écurie Fass na dox écurie Fass nag ñu ngi koy dégg ci fu mu daan dégg démb bërki démb loolu ma intéressé moom Usain Bolt ak Bled Jeux Olympiques day gis ku nekk day daw bu dugal bopp te ñoo bokk coach ñooy entraîné ñoo bokk ki ñu représenté te ñoo bokk li ñu def mais sport individuel la ku nekk moo sañoon tey man moo sañoon tey waxuma la écurie Fass euh, Tigre sax roi des arènes maa koy doon làmb ji maa koy téye su sañoon. mën na ah lu ko tax mënul nekk lu tax mënul nekk am na am nañ tuuti ci bëy bi am nañ tuuti ci xeex bi nangu doon liggéey li des nag mooy ñu teg ko ci yoon rek yàlla dimbali ñu amul leneen. léegi ay gudduree moom amutul ci làmb ji da ngay def li ngay def bëgg ko jour combat boo ñëwee sa nii nga teg ko ci amul leneen. waaw bëri naa n'importe qui ci làmb ji man bëri naa n'importe ci làmb ji Balla Gaye bëri nañu kenn kenn nañu mooy roi tey mais bëri nañu. ku nen tojul waaru nga papa sànni na ndox bi xalifa ngiraan moom nen la toj ñu ngi léewtoo ñu ngi léewtoo waaye léewtoo gaaw na xeex la papa jël na ko papa xalifa ñoom ñaar ku ci nekk xalifa ngiraan mi sukk bëgg a daan. wéyale na Papa Sow ña ngay bëri bëri suuf ña ngay bëri bëri suuf ña ngay bëri bëri suuf ndax jéem. Xalifa Ngiraan a ngi dóor nee na nu jël amagul de nee na nu jël amagul prise bi na nu jël amagul ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi sànni sa morom ah ñoom ñaar metti na. Alpha Ngiraan ak Papa Sow wéyale bi ku nekk ci ngemb la laa ilaaha illallah wan nañ leen ginnaaw ca kanam ña ngay Papa Sow daan na waaye deret gi bari na ci kanam gi Papa Sow daan na waaye deret maa ngi benn émission rajo benn waaye bu ne war nañ arrêté signature contrat yi def soir ndax élèves yi du jàngi wala booy liggéey duñ liggéey mais loolu bokkul ñi jàng ñi ngi jàng ñi liggéey ñi ngi liggéey am ñoo xam ne demuñu fenn am nañ jot dañuy seetaane am ñu amul cours aussi mën nañ dem seetaane. Euh, pour ñu tëj école yi mbëri bañ si entraîné mais mais loolu loolu du xel du xalaat Sénégal ñun liggéey ñun du normalement quartier boo dem état war na fa def place suñu entraînement kaay ak leneen ak leneen ñun duñ européen duñ ay occidentaux ñun fii lañ dëkk. fii dëkk nag amuñu ay place yoo xamante nii rek prévoir nañ ko pour sportif yeeg yooyu noonu comme ngay demee ay fee gis parc yi gars yi di entraîné fii ba Pikine amul amul Sénégal école yi lañ am pour entraîner. fa lañ ko mën defee fan fu ñu feneen ci tali li ñu koy defee wala ci mbedd du yàq xale. xale ñu ngi dugg école yi ñu ngi fay dugg ay 17h30 17h élèves dañuy génn ñibbi. élèves yëpp ñibbi nañu ñu war a suñu seen xam ne seen parents yi am nañ am nañ pas ñoom buñ génne école yi ñu def cours du xamante ne nag seen ñoom ak seen doom ñoom faalu seen doom mooy ñi xam ne bu ñu wàccee timis ñu dugg seen kër ñoom kenn mënu si ñoom dara aussi. Papa Sow a ngi topp bàcc Seras Papa Sow ngi topp bàcc Seras waaye saa su ne bàcce ngi dóor bàcce ngi dóor papa ngi dóor bàcce ngi dóor papa ngi dóor bàcce ngi dóor papa ngi dóor ndax fan la dem ndax dañuy songoo ci biir jàppante jàppanteegunu laay laay la laa taalal na baaraam yi mel na ni lu bëgg a dóor papa Sow mi ngi koy topp di dóor bàcc bë papa bëgg na jël waaye bàcc bañ na papa Sow a ngi dóor papa Sow a ngi dóor Papa Sow a ngi dóor Bathie Seras daanu na. boobu combat boobu combat boobu moo ma moo te combat la boo xam ne demoon naa presque bay avance ba presque presque bay delloo avance damay Moussa ñu ngi mu utal combat maag santaan ñu ngi début saison bi laa mu doon ubbi ñu fay ma huit cent mille francs ci instant boobu noonu ma xeeb ko ne dama ko bëre ñu dem dem ba ci biir. combat bi ñu dem ba ay côté euh, mars jëm avril Gaston Mbengue Abbas bu woo Gaston Mbengue ne ko bëggoon booy bëre Gaston ne ko doon man soxla moo combat bi. boobu ñu may fay huit cent mille ma bañ ko mu bëre cinq cent mille bu ñu avance nag man avance un million la may xaar cinq cent <laughs> xam ne nag bon góorgóor la quoi boo ñu joxee nit sa accord donc damaa bëgg a bëre damaa bëgg nga négocier ma say combat. lii bu ci amee sax amul problème ba jëlee combat taxaw mooy amul problème ranki nag boobu laa yóbbu esaat te it keroog dafa amoon lu neex yëpp presque maa ko indi ci làmb ji moo pil plus rek ma génn. ñoom ñaar ñi ñëpp daawuñu bëree nii wala bu papa daan bëree papa jël la tànk tonnerre tonnerre ba tax papa bañ na tonnerre papa ñu ngay bëre léegi mu jeex léegi mu jeex. ñu ngay bare kattar bi na ko la ilaha illallah xoola tànk ba da ko doon kal papa bëgg génn tonnerre bañ na tonnerre ngay door papa kal na ko tan papa daan na ko wala daanagu ko daan na ko wala daanagu papa ak tanet papa jël na tànk ba papa jël na tànk papa jël na ko ba ma koy sotti tonnerre bañ na tonnerre bañ na mbota fay am papa saw daan na ko wala daanagu ko ba tey arbitre bi arrêté na combat bi wala arrêté wu ko waaw sori woon na ci man ndax egg dama ne sori woon na ci man foo xam ne tey bon bëre rek la ci mën a génnee mootoo wala nga bëre nga daan ko wala mu daan la moo fi des ñaar yëpp yàlla aussi tamit yàlla teg ci loxo mbër yu bëri contact contact lu bëri léeg-léeg nga daan mbër sax doo xam noo ko daanee li Moustapha Gueye wax daan daan mbër ba ñibbi sama kër ñibbi yëpp su ma nee sama kër ba na laa def ba daan waaji da ciy am waaw di nga mën a bëri nag mais combat yi bëri yooyu noonu Euh, day ñëw rek quoi nekkul yaay préparé ndax boo ko préparé may ko bu fa eggee da daan moo force bi egg foofu nag ngeen bëre ba loolu ñëw donc nekk loo xam ne yaa ko yaa ko yaa ko ko tey wala sa mën a bëre mais bëre mu egg foofu rek nga def ko ci football day am ci sport da ciy am léeg-léeg nga def geste technique boo xamante nii da lay bett sax yow quoi. boobu man gëmoon naa ne ga gars yi dàq ñu ma bëre gën ñu ma ko bëgg maa ngi entraîné tout ça mais doo xam lu lay téye doo xam lan la doo xam lan la mais. liggéey rek am solo quoi pour benn instant. tu bien à Fass. waaw waaw très bien Fass moom maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm te yàlla moom maa ngi ci jàmm. xam nga moom sport dafa métti jamono bi ngay daan ak bi ngay daanu yëpp fexeel dajale ñëpp booy daan nit ñi dañu ci jàpp booy daan nit ñi dañu ci jàpp fexe dajale ñëpp rek. maximum moom champion leg, rek la leen mën wax si moom am mu ah moom laa bëgg de loolu de laa bëgg loolu daal laa ah li daan bàyyi ma yéen xamaguma ko dama yor suma encadrement technique bu ne ma defal nii defal nii rek ma defee est-ce daan ko ci bëre. mane bu ñu njëkkee dugg faas jili da ko daan ci bëre mu duggaat faas jili daan ko ci dóor léegi man damay boole ñaar rek bëre bi laay boole. xaritam dox mhm. waaw combat boobu yaa ngi koy fàttali. da ma doon ay rek ne ko nees bu ma taqal rek laa waroon def ne ko moytu ma taqal rek laa waroon def dem nit waaye. bon defet nag buy ñëw moom terminus dara da ngay nangu rek da nga nangu rek da ngay nangu rek mais du tàggoon transitoire sax man bon mais dugg ci géew bi Forza nee na ma moo ci placage bi mais bi ma ko jëlee eggoon naa foofu foo xamante ne nii pour man sax jeex na ndax romb naa romb naa ba sori mais moom am na lu mu am ci bëre nag nees am na lu mu cuune cuune am na lu mu am ci bëre tax na nit ki bu ko xeewal benn caxabalam waaw. ma ne la waaw bu ko mën a wax ma ne bu ko xeewal benn caxabalam. stade Demba Diop tey jii ci dimanche Papa Sow Zoss Zoss a ngi dóor Zoss mi ngi ci biti Zoss bëgg naa jàpp Papa Sow mi ngi arrière Papa Sow ngi arrière Zoss doon na door jël nañ ko jël nañ ko jël nañ ko jël nañ ko daan nañ ko. daan nañ ko Papa Sow daan na la. Birame daan naan la Birame. Papa Sow daan na la. Birame daan naan la Birame doo yëngu na ko. Birame daan naan la Birame. Birame daan naan la Birame moom da koo xaar. moom bu tënk waay. yow mii doo ko wut fii du baax. waaw daan naan la Birame moom day def moom bu tënk moom. nga ni yow yaay ko. man maa ngi laan dañ doo bu ceeb. waaw. Papa Sow daan naa. jël bu set la Zoss. jël bu leer. jël bu leer. états moom dañu profité di fa nuyu ñëpp ñu fa dëkk ñëpp ndax bon ay borom baax la ñoom boo ñëwee amatul écrit sangam ak écrit sangam Sénégal lañ lay wax dama xamuñu écrit Pikine ak Fass ak kenn ak kenn Dakar Sénégal ñoo ah kii Sénégal la mbër la ñëw na na ko ñëpp jàppale gars yi jàppale la mu jeex mais foofu nag wax dëgg yàlla di nga di nga récupérer Salib baax na ñu fa ñu fay entraîné aussi xam na li ñuy def boo fa demee ñëw daal boo liggéey dina yow mën nga am combat xam nga fay dem da nga soxla doole soxla sàng am combat xam ne soxla woo ko jël nga fay dem mais tamit léegi moom tukki daa xam mbër mu tukkiwul sax sa encadrement wax ak yow ndax mel ne mbër mu demul voyage si àll bi te dégg supporter bi kii bëggul combat bi ndax du génn si àll bi léegi boo demul États-Unis wala Europe ñoom ko entraîné woo sam saal bu doon entraîné moom gisuma ko fi moom matériel fa nekk moom ndax loo soxla sa karaw bët ba soo tànk loo fa soxla da nga ko fay fekk muscle boo bëgg a liggéey da nga ko fay liggéey te boo ñëwee di nga lekk ba suur di nga noppalu kenn du la sonal da nga ñew ci kër goo xamante ne yow rek fay nekk bu gudd ni nga ni nga dëkkal doog a da nga am récupération bu baax quoi expérience baax nga fay am moom boo demee boo demee ñoom non seulement rek sen sen façon dëkkin rek ñoom ndax dunoo yaru fi mom wax dëgg yalla afrique mom réew réewande fi la fekk baax fee bo démé da nga ñew xam so xam aduna nga wax mu so xam aduna ngay wax respecté nit nit respecté loi respecté doomu aadama moo tax boo fa demee ñëw da xam ne yow Afrique bi seen seen coow bari mais développé wul. Ah, ko wax. rek laa yokk xëy na muscle yi génn rek. mais dara sa rapidité. ah da ngay wàccaat ah, naa nga yokkaat nga wàccaat xam nga làmb léegi tant que réew du la fay ay millions yu bari waaye. Paa Mignane waaw gis naa ko wallaay Paa Mignane dafa baax Paa <laughs> Mignane googu dafa baax moom Paa Mignane laay ah. baax na moom nit ku baax la dana kaf foore. borom baax la ndax kàddu yi ah ñun de tontu moom forox loo wax rek ñun payam lañ jël rek sànniwaat toog xool la. combat bi a ah, de mars na wax ak man su ma sañoon man mu bëre janvier wala décembre. torop moo tax ma bëgg man su ma sañoon mu bëre janvier. janvier ma ko mën tëgg woon naa Aziz wax na ko dimbali ma bëre janvier mais ñu ngi xool mais yaakaaruma nag dina taxaw mais daal moo sañoon man ñu bëre janvier féete xool yi la waaw dañuy daan bu soobee yàlla dañuy daan bu soobee yàlla incha allah rabbi soobee yàlla waaw yaakaar victoire moo tax ma jël combat bi xam nga lu may nekk nii demi final pour final et mooy ñi nga xamante ne tey jii ñoo nekkaat ci kaw beneen plafond bi tey boo jugee ci combat bi fa nga jëm foofu ku fa am baax na ku ñëw baax na moo tax moo tax ma ne demi final la moo instant bi man combat bi muy bëri mooy bàyyi ma ñoom man naa daan bàyyi ma ñoom rek su ma daanee bàyyi ma ñoom ba pare ku ma yàlla jox rek amul la ma jël ko. bëgg a bëri ak Modou Lo xam bëri mbër du ma nekkul ma may def mbër nekkul ma may xañ mbër mu ngi dox course am man maa ngi dox samay course yàlla mi ngi may suturaal yàlla nga koy suturaal alhamdulilah rabbil alamin. non man moom musuma musuma musuma profité pour bëre moom musuma ko déclaré pour bëre moom te duma ko mës a déclaré pour bëre ak moom maa ngi ci làmb ji bëre yàlla nga may dimbale lépp lu mu mbër di am yaa ngi koy am ci làmb ji kañ sant yàlla dafay di ma gën a naqari xanaa maag nees ba xanaa naqari na ma xam ndax mu naqari ma dafa di combat boo xamante ne nii waruma koon perte combat la boo xam doon génnee la waroon génnee rek nga dem sa yoon wasoog seulement nga jël bi tegoo ko ci yoon ñëw daanu daanu bu ñàkk fayda boobu du yoon quoi keroog no boo demee ba egg foofu ci làmb rek li la war a gaare rek dafa nekk loo xamante ne bu la gaaree rek naan non kii war na ko gaare mais da arrêté dina mooy loolu quoi comprendre. tamit boo ñëwee làmb ji war a bëri bëriwoo di lowaatoo ba gis jaar la mais boo bëree ne sa pare moo seulement combat bi si ma fayoon dañ koy yokk kon mooy combat bi peut-être def erreur boo xamante ni maa ngi sos dafa def dama def erreur boo xamante nii mooy waroo woon bëree nii perte ko combat bi mais waroo woon perte combat bi mais ñëw mu duma la taxañ la daan la day wàññi sa valeur ma nees daane li ma fay bi ma bëree nees li ma li ma fay si contre sos moom non man aw ma promoteur ndax bu muy Aziz Ndiaye lii suma combat 2STV yi mu ut sama combat dem ba si biir Aziz Ndiaye jël jarul xëccoo ndax eh, Aziz Ndiaye eh, ak Alaaji Ndiaye presque ñoo ay ñoom ay partenaire lañu amul xëccoo ñu ma woo nee na ñëw woo naa nee na nag maa ngi jël combat bi sangam sangam nga xamal ma tamit ne ma noonu yëpp benn la bëre Aziz Ndiaye bëre Alaaji Ndiaye benn la amul problème te yàlla dina yàlla def li gën rek quoi. waaw ah, sant ñëpp di nuyu ñëpp nuyu waa Sénégal yëpp di leen xamal daal seen mbër seen doom jël na combat bu bëgg. du wax naa maa ngi woo ñëpp rawatina écurie maa ngi woon ñëpp parcelle moom 1 ba 26 nga bëgg teel a commencé réunion yeeg préparer mobilisation ba nga xamante ne zéro faute waa Grand Médine nag HLM raay ba ba HLM 1 ba HLM 5 bàyyiwul kenn pour lu may